dama bëgg a doon policier wala gendarme <coughs> wala médecin wala footballeur ni nga koy tànnee. Mm-hmm. affaire foofu lay départ est-ce que da nga ko choisir par amour pour te faire plaisir. Mm-hmm. parce que liggéey bi ngay liggéey soo ci amul amour soo ci mënul sentir plaisir doo ko def ni mu waree. Mm-hmm. te loolu nag problème la. ñu bëri. dañuy bàyyi ba benn liggéey présenté wu rek. ñëw liggéey parce que seen objectif du liggéey bi. seen objectif nepp nekkul nii j'ai le en tant que citoyen j'ai le devoir de travailler pour servir. Mhm. am na ñoo xam ne du noonu lañu koy gisee ni ñu koy gisee mooy war naa am xaalis naa am ci lu ma nekk. d'accord léegi nag su fekkee ni am xaalis moom mooy sa problème. Mhm. moom mooy sa objectif da nga bëgg am xaalis li sénégalais di wax rek xaalis noo ko amee baax na. Mhm. ci loolu ngay nekk yow xaalis nga bëgg. non liggéey bu ñu la mën a présenter di nga si dugg parce que yow li la intéressé mooy am xaalis. loolu la war a génne ci suñu bopp yi. je pense euh, kii la ñu waxoon maam Ahmad Bamba. Mhm. xaw ma sëñ Fallou moom moo mas mhm. a téye dërëm. Mhm. naan ko yow dërëm lu yàqu ci dëkk bi yaa ko yàqu. te loolu réalité la. nit ñi humanisme amatuñ ko. nit ñi léegi dañuy bañante. est-ce que nit ñi léegi koo gis nit su pour yow nit su la rombee nuyu la sax dina la laaj grand koñ bee fu mu féete sax. da nga koo war a jox dara sino faa du la sax faale. sawarul sax si tontu la quoi. donc. li ñuy wax ku nekk noo ko jekkoo rek mm. lijjantil sa bopp. éducation la rek. loolu moo fi nekk. muy corruption muy mm. bi. Mm. moo gangréné société bi. waaye ñaata yoon nga dégg ñu ne Ilimaan bi këpp na kees jàkka ji. waaw bari na. nag loolu lu ñuy dimbali ah. na lu ñuy dimbali problème bu ñu xaw a sonal nag. parce que dafa bëri sénégalais yoo dañoo faible. Mm-hmm. faible mooy il se conforme sur les phénomènes sociétals mm-hmm. que. Euh, war nga am jabar war nga ko jox un million. Euh, mm-hmm. kii mm-hmm. war nga ko jëndal lal lal buy jar huit cent mille. Mm-hmm. war nga nangoo nga yow amoo ko. mais da gëm ni da war a forcer ba def ko moo lay dugal si loo loo loo xamul. jërëjëf. te corruption bi. corruption baaxul. ci lu wér soxna Yacine ñu tënk ko waa xam nga maanaam euh, li ñu xam nga xaalis moom kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti léegi moo yàq réew mi. xam nga sunu yaakaar ji Serigne Touba daawul sol sax lu am poos moom xaalis moom